waaye bëggoon naa nga wax ma li nga xalaat ci saagakat yooyu ak li nga leen di digal surtout bu situation sérieuse comme si li nga xam ne moo la daloo. mais Yérim xam nga man loolu man comme ni ma lay wax dama la sànq ne naa la dama dam ba banaliser euh, ay menaces noonu laa banaliser aussi euh, saaga wax bu ñaaw écoutez euh, je suis dans l' espace public di wax tous les jours. di invité ay nit ñu wax euh, voilà aujourd'hui ce sont les règles du du du, du jeu euh, da ngay def sa liggéey euh, ku ci nekk ak entendement bu mu ciy am ku ci nekk ak gis-gis bu mu ciy am on en en, en démocratie et aujourd'hui il y a une il y a une ouverture de l'espace médiatique boo xam ne ku ci nekk fi nga toog bu la neexee nga jël sa sa sa sa téléphone euh, nga wax donc loolu man du ma ko def euh, du ma ko def un drame euh, du ma ko def un un un sujet parfois même ici après une émission avec les les les les collaborateurs voilà on on s'amuse de de de de de certains de certains commentaires c'est-à-dire lenn rek laay wax et ça je ne le dis pas pour moi je le dis surtout. pour ñëpp mais aussi pour les pour les femmes boo nekkee dans l'espace public euh, psychologiquement da nga war a préparer wu euh, à subir la vindicte populaire mën na nekk mën nga def émission nga xëy ñu amee la euh, mu def mu jur mécontentement boo xam ne c'est légitime da nga war a préparer wu aussi à à à faire face à ce à genre de de de pratique te man miis naa ko euh, ma vie a pris un tournant depuis euh, depuis depuis depuis deux mille euh, depuis deux mille vingt euh, plus ngay gën di investir plus ngay gën di nekk ci télé bi plus ngay gën di wax plus suñu borom di gën a yaatal li nga xam ne moom mooy sa sa sa liggéey et ça va avec ça. après li ci neex mooy boo rombee un sénégalais ne la dama laa bëgg j'aime beaucoup ce que tu fais ne change pas reste celle que tu es ma femme t'adore mon mari t'adore mon père t'adore loolu mooy lu neex li mais lu naqari tamit mooy sénégalais bu nekk fi mu nekk euh, am droit bañ la euh, am droit ne dafay wax ak yow et puis jaar ci ay euh, réseau yoo xam ne yaakaar na ne bu waxee ak yow xëy na di ko dégg mais man je je je banalise ça et mosuma ko kaas du ma ko du ma ko mos a kaas euh, c'est juste que lan la ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy wut ñoom ñooy daagaan baatu réew mi ñi nga xam ne ñoom ñoo am baat ci réew mi ñi nga xam ne ñoom ñooy sensibiliser di informer euh, dañoo war a yaraat nit ñi parce que c'est un phénomène nouveau c'est un phénomène mondial sa existe partout c'est très violent nag Euh, mais pour éviter que mu def ravage ci nit yoo xam ne ils sont pas préparés ci nit yoo xam ne peut-être au plan psychologique au plan moral euh, mënuñu ko supporter et que loolu mën na sax inhiber li nga xam ne euh, moom mooy seen énergie il faut que ñu ñu ñu préparer ñu préparer nit ñi ñu préparer nit ñi à la vie publique ñu préparer nit ñi à l'explosion euh, à une exposition dans dans dans dans l'espace euh, dans l'espace médiatique et puis euh, ñu ñu dédramatiser ko nañ ko ne mais nañ ko dédramatiser ba nga xam ne jigéenu journaliste bu bëgg a euh, bu bëgg a exprimer wu bu bëgg a épanouir ci li nga xam ne moom mooy métier bu mu bu mu mu ragal loolu da nga koy affronter quand il y a un mal on l'affronte